pour une première également une femme au ministère de l'économie euh, bi nga xam ne dañ ko buñ ko booleek euh, Euh, le ministre euh, euh, la ministre de des affaires étrangères day nekk ñaari ministre yoo xam ne ci poste boobu jot nañ leen fa am mu nekk ay jigéen waaye itam directeur de cabinet Abdoulaye Daouda Diallo directeur de cabinet ministre d'État directeur de cabinet du président de la République ak yeneen détails mais je donne directement la parole aux invités Thierno Bocoum lecture bu njëkk bi ngay am ci gouvernement bi am na ñu ñu reconduire am na ñu ñu génnee am na ñu bees xam naa ne à tête reposée dinañ mhm. dinañ gën a am lu gën leer si si si gouvernement bi mhm. mais quand même am na deux appréciations à peu yu ma si yu ma bëgg a def benn bu njëkk bi mooy je pense que le gouvernement est pléthorique y a mhm. de ministres su xoolee ministres yu yu ñu yu njëkk wax si décret bi bu ñu njëkk a wax mu 38 ministres yi lu si lu fi si boole romb nga quarante jëm kaw ñoom ñëpp ñu doon ay donc amul benn changement à ce niveau là. te loolu bokkoon na si loo xamante ne dañ ko doon dañ ko doon xaar euh, en tant que koo xamante ne nag dafay def dafay jàpp ne ne nous sommes dans un pays boo xam ne 70 euh, pour cent de sénégalais ont moins de 35 ans. Mm-hmm. dama bokk si ñoo xam ne dañu dama mus a jàpp ne dañu war a def la promotion des jeunes. Mm-hmm. donc le fait mu am 8 jeunes pour man c'est peu. loolu mun nañ ko rafetlu très franchement am na ñu ma si xam ñoo xam ne j'en profite pour les pour les féliciter tout en espérant que lu ñu leen dénk dinañ si def loo xamante ne moom la Sénégalais di xaar si ñoom euh, mais globalement je pense que on a l'impression si même dynamique bi lañ nekk maintenant on va voir ce que cela va donner mm. euh, tey mënu la wax kii moo génn kee moo génn d'ailleurs je dis souvent que du ma dugg dans jeu parce que président moo xam ku ko jox satisfaction ak ku ko joxul satisfaction c'est lui le chef de l'exécutif ba moo mën a apprécier ses ministres donc moi pas savoir ndax kii mu ngi def liggéeyam wala deful liggéeyam donc du ma dugg dans ce dans ça mais jàpp naa rek ne euh, def aussi ay ministres auprès de tel ministre hmm. amul sens c'est-à-dire que on donne l'impression aux Sénégalais que ne un ministre travaille c'est comme si un ministre travaillait seul ministre bi mënul gérer yii yëpp donc nañ boole beneen ministre mu gérer alors que ministre dafa am cabinet ministre dafa am possibilité am ay experts yu nekk à ses côté ministre dafa am un ministère mmh. un ministère toute une équipe tout une équipe mmh. toute équipe d'ailleurs lu bëri lu ministre yi di def c'est l'équipe en réalité qui est derrière donc on a l'impression nu nu premier ministre expliqué que ne mi dafa am solo ba nga xam ne dañuy sax détaché encore beneen ministre pour pour mu mën ko jàppale non je pense quand même que mënoon nañu gën a gën a gën a euh, recentrer euh, le gouvernement malheureusement ce n'est pas le cas. est-ce que pour les attachés ça ne permet pas d'être beaucoup plus efficace. Euh, am na yenn problème yoo xam ne comme la question des inondations benn ministre boo xam ne mooy chargé aussi inondation yi est-ce que du ko permettre mu gën a régler problème bi. non mais concentré aussi moom laa lay wax cest dire que tey un ministre un président de la République. Euh, dafa dañu am équipe yi ñuy est-ce que le ministre bu doon gérer mbirum inondation yi dafay dem taxaw fu ne di fu ñuy manqué mu ñëw taxaw. Mm-hmm. fu ñu defee lii mu ñëw taxaw non ay injonction lay joxe ay directives lay joxe donc un ministre n'a pas besoin d'être tout le temps tout le temps derrière son équipe. Mm-hmm. donc je pense question d'organisation la. Euh, pour moi, nous avons sendewatt encore di créer des ministères en en plus finir. Mm-hmm. Et j'ai vu également un peu d'incongruité pour continuer. Oui. Un porte-parole euh, du gouvernement et un porte-parole de la présidence de la République, bah, on est toujours dans l'exécutif. On ne sort pas de l'exécutif. Tu as deux porte-paroles de l'exécutif. Man gisuma vraiment le sens de ça. Très franchement, je ne le vois pas. La présidence de la République, si ça tourne autour du président, mais le président n'a pas besoin de porte-parole. Le président doit directement s'adresser à la nation. Mouler. Euh, su les gouvernement la on peut comprendre il y il y mun na porte-parole du gouvernement mais mais ya en tout cas cette incongruité bu ma gis euh, bu ñuy bu def à chaque fois ne porte-parole de la présidence porte-parole du gouvernement gisuma vraiment sens bu am en tout cas il y énormément de postes yoo xamante ne Euh, peut-être mënoon na ñàkk parce que on a besoin d'efficacité et je ne pense pas c'est en multipliant les postes qu'on aura une efficacité d'accord euh, euh Ben en quoi faisant la ñu amee efficacité c'est c'est compliqué hein, cette histoire <laughs> parce que moi pour la première fois ma gis euh, ministre de l'intérieur ñu toftal ko benn ministre muy le poste de biram fay mhm. bi nekk euh, il est de Fatick. Mhm. nekk euh, DG sécurité de proximité agence mhm. bon euh, je je di dis que ni loolu vraiment ça pouvait se gérer au niveau de de ce ministère là. am na ñaar ñett yu mel noonu yoo xam ni que j'ai pas compris mais surtout. man les sorties parce que Matar Ba je me disais avec la Coupe d'Afrique. Euh, la qualification à la coupe du monde ñi ngi préparé coupe du monde pour dem. Mhm. Euh, je sais que y a eu des missions même de repérage yu ñoom Seydou Sané defoon bon. Euh, Diatara qui qui va au ministère des Sports. Euh, benn cassure lay am. par rapport ak par je sais pas vraiment sa sortie hmm. euh, li Thierno wax léegi c'est le président moom moo xam. Hmm. bon Omar Gueye de Sangalkam était porte-parole du gouvernement il s'en va parce que il a été défait de l'autre côté. Hmm. deux trois de de suite. Amadou Hott on l'attendait au ministère des Finances. parce que je me disais que ni bu Abdoulaye Daouda Diallo demee xëy na moom day monter en puissance euh, bon là il il saute carrément euh, ñeneen ñi bon. C'est vrai qu'il y a des, des, des ouais, de Fatima Tall, des Salih Diop euh, avec tout ce qui lui est arrivé à Kaolak, président, Hamga nga elle a même été humiliée parce que son ancien mari, Lenduron Defke, mhm. euh, Kanda Momad Bitey, ça lui avait fait très mal. Mais de façon très sereine, de façon de glou. Mhm. Elle est députée, mais ni, elle va quitter l'Assemblée pour euh, retourner dans, dans, le gouvernement. Zara Yantiam qui s'en va. Khayrenak mhm. euh, Amna Ben Vatanguer, Bohamni Momsa, sorti va faire plaisir à beaucoup waaw moom moom maître Malick Sall moom gars yi nekk mbaalo yi alhamdulilah. mais ki ko <laughs> remplacé il pose problème. Ouais. parce que Ismaël Madior quand même euh, à la justice ce tailleur constitutionnel la woon. benn question nag bu ma jaaxal c'est man la place de Seydou Gueye dans cette histoire là parce que j'ai pas entendu le nom de Seydou Gueye dans l'histoire mm -hmm. est-ce que Seydou est toujours à la présidence est-ce qu'il est toujours le porte-parole du président de la République Euh, je sais pas apparemment non. waaw parce que bu Yoro Dia duggee foofu. Hmm. Euh, Latif nekk secrétaire général du du gouvernement bon euh, quel rôle la ñuy jox léegi Seydou Gueye c'est c'est une question bon am na si yoo xam ni Ablaye Diop ki quitte la culture asom yooyu c'était à la limite prévisible mais bon. nañ xaar dans les jours à venir qu'est-ce que le le le président nous réserve encore parce que ah, il y a d'autres biscuits à. à partager. Mhm. parce que fi ñu toll nii ñoom si si partage boobu la ñu nekk man sentiruma la prise en compte des préoccupations véritablement des Sénégalais. Mhm. pour man euh, waa ji mi ngi placé ay ay nitam quoi. xam nga un un Doudou avec tout ce qui s'est passé digganteem ak Sonko du côté de Ziguinchor. ñu jëlee que DG AIBD dernièrement il a même eu des des problèmes. ñu jël Doudou Ka def ko maintenant ministre des transports aériens. bon euh, te mënoon ñu boole comme à l'accoutumée transport aérien et tourisme parce qu'il y a le retour de Mame Mbaye Niang mm -hmm. euh, Abdou Karim Fofana qui vient comme porte-parole maintenant du du gouvernement. ça veut dire que Dakar euh, dellu si nañu avec quelques quelques quelques ministres. Mm -hmm. euh, sinon comme disait Thierno j'ai j'ai j'ai beaucoup aimé le cas Pape Malick du Prodac qui monte maintenant qui devient ministre de la jeunesse. Euh, Victorine Day. Euh, Victorine Day. Mhm. Euh, son son fameux débat avec. Guy Marius Guy Marius xam nga parfois moom laa tuddee défaite victorieuse. Mhm. elle a été mhm. battue à Ziguinchor mais elle a su véritablement faire preuve de grandeur ak yooyu. donc la Casamance le président Sall mi ngi si tenu ba léegi parce que ñooñu da leen di dooleel parce que gis na ni ni la dame elle est dans le cœur de pas mal de Casacé. moom ak Doudou Ka xëy na dinañu mën a def face à cette machine là. mais dans le Fouta il a la promotion de Maître Bokar Thiam maire de Ourossogui ouais. agent judiciaire de l'État donc qui devient ministre euh, euh, les signaux sont ne sont pas trop rassurants. Mmh. Galoba aussi qui, ah. qui fait son entrée. C'est que c'est que politiquement il a il, il a mis des des lieutenants yoo xam ne que ni xeexkat lañu quoi. waaw hmm. ils vont assurer peut-être le troisième mandat. non c'est sûr que ces gens face à l'opposition c'est mmh. le combat moom. Euh, Euh, déclenché nañ ko ba pare. même lecture ngay am Thierno.